lu dagg morom ma lay fekk alaaji kii sama gan la. yegg si. Sila Abdallah Abdallah xalifa bi. macha allah ah Sila. Sila Sila Sila Sila Sila Sila Sila Sila Sila Sila Sila maa toogal nii hmm. toogal nii. kanam gi daa jekk ci xale. waaw. waaye tubaab nee na. lu tubaab wax. la valeur n'atteint point les nombres donnés. xam nga lu tax ma am fitu indi ndax fi fii ku ñu xam ak ku ñu xamul la fi yam kuy jëriñ réew mi rek yaa ngi fi. dëgg la mm-hmm. damaa toog rek ñu présenté ko ma ko rek mu waxtaan ak man am yu ma ñamal. xam nga yow RG nga. ma ne ko yooyu du nëbbu ma ne ko lii nga waxtaan ak man. waaw kenn du ko nëbbu. askan wi dañ cee war a jëriñoo. man kay ni ma ko fekkee ci oto bi mu toog laa. ndax alaaji xam nga lu ma mitti man. ponkal la fi mu toll nii ku jóg nas sa kurus di woote. ah réew mi dafee bëri. na nuyoo ma ragal ni waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. bay nañ la nuyu Sénégal ak mboolem fu jullit nekk ak kudu jullit. di leen nuyu salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah. yow nga ne sax. xam nga ci attaque bi rek. dama gis suñu tool yi li ma doon wax alaaji. ku jóg nag sa kurus gu tool nii. Mhm. Mhm. kenn mënatu la ràññee. ki mhm. baax ki baaxul. ñi baax a ngi ci biir ñi naxaatee ngi ci biir seex mhm, mhm. te lu ne la ñuy jàmb di la ko jox dëgg la lu ne la ñuy xaatim di la ko jox mhm. lu ne la jël wérd di la ko jox nga koy wérd gone yaa ngi dof nit ñi seen yaakaar a ngi tas sey yaa ngi tas mu am lu mu waxtaan ak man am fu mu ko teg ma koy laaj lan mooy sëriñ macha allah laaj nga laaj bu am solo waaw laaj nga laaj boo xam ne tey dafa war a leer ci bopp Sénégalais yi. sëriñ. mooy ki ragal yàlla. ragal yàlla. Hmm. ko xoolee bu saa ko xoolee rek xel mi dem ci yàlla. Hmm. mooy ki gën a jege yàlla. waaw. Hmm. gën laa mën a jaamu yàlla. ba boo dul jaamu yàlla sax boo ko gisee sa xel mi dem ci jaamu yàlla nga dem jaamu ji yàlla. bu fekkee ne nag am na waru gar maanaam lu ko war moom sëriñ bi ñett yi mooy waru garam muy yan lal dars di jàngale mhm. xam-xam ak dem bàyyi ci tool bi ba du yaakaar kenn mhm. ba du ñemee wax kenn dëgg mhm. xaw ma dégg ngeen olof ba bañ a mu laa dégg waaw waaw ci tool bi du bàyyi mu liggéey rek mu liggéey waaw liggéey waaw bañ yaakaar ci kenn waaw ba du ba bañ a wax kenn dëgg dëgg waaw parce que nit boo ko yaakaaree. fan doo ko mën a wax dëgg. doo ko mën a wax dëgg. ak di dem ci jàkka ji di julli ji mboolem waxtu yi juróom di tudd yàlla guddeeg bëccëg. parce que yàlla ko am ful la. dafa wax ne fazkuruni azkurkum tudd ma ma tudd la. mensen mi aywa mensen yow. Mm. fàttaleku ma rek loolu la anglais la. english la waaw. loo ko waxee. mensen mi aywa yow. Serigne mhm. mm-hmm. Mara international. dinañ ci ñëw day ñëw day dem gana ginnaaw suba. attention ma ne Mara. waaw ñun ñi bëri soxla. Mhm. su ne nag. Mhm. ñii dañoo am jàngoro. ñii dañoo banque. ñii dañoo xulloog seen i jëkkër. ñii dañoo bëgg place bu ñuy liggéeyee ñu gën faa toog. ñii bëgg nañu place bu ñuy liggéeyee ñu dàq ka fa ña ñu toog ñu teg leen fa. ñii bëgg nañu nit dof. ñii bëgg nañu seex te pëtiku. ñii bëgguñu wujju. ñii bëgguñu wujju. waaw. ndax alxuraan dana faj la lu wax de waaw xam nga alxuraan bëri na ay ay bëri na façon waaw maanaam da naan damay naan waaw ah, ah, ah, maanaam boo dul naan bàyyil na demal maanaam waaw nga ne alxuraan bëri na façon waaw waaye tey hmm. jotaay bi bu yaatu woon. Hmm. danaa ko yaatal. waaw hmm. parce que dangaa laaj lu am solo. waaw dafa am alquranul karim. waaw am alquranul majid am alquranul azim. c'est-à-dire gën azim la ñu xam azim moo gën. <laughs> parce que hmm. ji dox la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. majid escalier bu lay yéegale ci azim. karim nag moom la ñuy jàng ci téere yi. Ah. ba xam nga nit ñi léegi alquranul karim rek la ñu wax gis naa ko ci alquranul karim ñett yëpp yàlla indi na ko waaw wala xad ataana saban min al wal quran al azim jox nañ la juróom-ñaari mhm. nañ la saban al masani di fatiha mhm. ak alquranul azim alquran ju màgg ci <laughs> bal huwa quranul karim ban ci alquran yooyooyu faj azim bi mooy faj mooy ba gën a parce moo gën a kowe dina faj yooyu bal huwa quranul majid fii lawhil mahfuz loolu al quranul majid la innahu la quranul karim fi kitaabi maknunin laa yamassuhu illa al mutahharun maanaam innahu la quranul karim mu ne lii téere bu téere bu tedd la waaw fi kitaabi maknunin ñu mu ci téere bi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko denc ñu ngi ko làkk fu sell mhm. fu yàq du yegg hmm. kenn du ko laal nag lu dul nga laab. waa léegi. loolu ndax mën ngeen koo jël ngir tas sëy wala dofloo nit. warul wala wala wala wala yàq nit. warul wala téppati nit warul. xam nga dañuy dem ba tey. waaw yàlla dafa digle ci alxuraan bu ñu yàq. waaw. bu leen tuurante ay deret. waaw. na ngeen rafetal jëm ci mboolem nit yi. waaw. parce que yonent bi dafa wax ci benn xadis sallallahu alayhi wa mu ne. waaw laa yuminu ahadukum. xataa yuhibbu li axi maa yuhibbu li nafsi mhm. kenn du gëm ci yéen mm-hmm. lu dul lim bëggal boppam mm-hmm. mu bëggal ko moromam mm-hmm. waaw dama ne loolu ndax ndax ndax mën ndax dinañ ko ci def loolu alxuraan danañ ko ci def waaye baaxut yoon te du yoon hmm? tas mbokk yàq diggante nit ak nit yonent bi sallallahu alayhi wa nee na hmm. képp ku jokk mbokk yàlla jokku la waaye ku ko dagg yàlla dagg la nit dana dana juddu am fanweeri at dese fanweeri at mooy 30 mu mu mu yàq mbokk yàlla wàññi fanweeri at yi ba mu desee ñett fan nit dana dund ba dese ñett fan jokk mbokk yàlla yokk ñetti fan yi def ko 30 ans man man Cheikh dafa am lu ma jaaxal waaw boobu dafa naa ne dafa kii dafa am lu ma jaaxal dafa am man ñu may diggal sarax waaw rayal bëy def ko nàngam jëlal soow def nàngam defal nàngam defal sàngam loolu xanaa newul ci alxuraan sarax dafa am ñu ko nangu am ñu ko nangul ndax saraxe saraxe dem ci mu lay digal sarax ndax dafa dagan saraxe dagan na saraxe dagan na waaw damaa bëgg nag ngeen laaj ma waaw fan nga teg loolu parce que loolooy neex fa lañ doon jëm waaw waaw déet moo tax nañ la ko laaj waaw lañ yow tey mën nga koo laaj sax mën mën ne lu tax maam wax loolu dagan na waaw ci nan dégg nga waaw yàlla dafa yónni Jibril waaw ne ko demal ci suuf waaw nga tibbal ma fa 363 xeetu suuf hmm. nga ñëw ma bind ci mbindeef moo xam ne hmm. daf may defal daf dama koy jaamuloo mu jaamu ma ma hmm. dugal ko aljana ma jaamuloo ko mu mooy ma ma dugal ko safara waaw Jibril naawee asamaan juróom-ñaari asamaan waaw ñëw ba ci suuf di tibb waaw suuf ne ko lent lu naa la yow Jibril bul tudd ci man paar buy dem safara mukk ñaan naa la loolu rek ngir jaamu yàlla sama xaritu jaamu yàlla gi nga nekk waaw Jibril dellu gaaw bu waxtaan bi waaw mu yónni Mikaayil waaw Mikaayil ñëw di waxoon Jibril waaw Mikaayil dellu mu di tibb. Mm-hmm. mooy malaakal mawti. Azraïl déedéet du malaakal ah. mawti. malaakal mawti mm-hmm. la tuddoon bi faw muy tudd malaakal mawti. <laughs> bi mu ñëwee di tibb. su waxoon li mu waxoon ah, mbokk malaaka mu dellu ci kaw asamaan. Mm-hmm. bi ñu yónnee asrafil. mu ñëw wàcc di tibb suuf ne ko lentul naa la yow asrafil bu tibb ci man paar buy jëm safara. asrafil ne suuf. lentulu naa la ngir jaamu yàlla giñ bokk nekk rus naa sama borom di ma yónni te yóbbuwuma lim ma yónni suuf jooy asraafil tibb waaw muy ban bu tooy xeb mu yegg si yàlla ne ko ayow sa mbokk yi dem nañ indiwuñ benn suuf yow ma yónni la rek nga indi suuf waaw mu demee nan la demee lu tax nga indi suuf waaw mu ne ko suuf daf maa lentulu ngir jaamu yàlla gim nekk nekk sama mbokk jaamu yàlla. man tamit ma lentu loolu ko nekk sama borom du ma yónni mukk te daw ma ci lim ma yónni. Mhm. te indi lu ma ko. Mhm. yàlla ne ko dénk naa la kóllëre gi. Mhm. yow yaay malakal mawti bu ma rayee nit. yaa waaw. malakal mawti rayut de yàllaay rey. wa yumiitu. waaw moom dundal. waaw mooy yàlla teg ban bi. suuf su tooy soosu. mu teg ko 40 ans. waaw mu nekk entre tooy ak wow beneen 40 ans. muy ñaata muy 80 ans. muy mu nekk diggante ban bu tooy ak ban bu wow. ci kat ci ci deuxième 40 ans bi. Mm-hmm. mu tegaat ko mu weeraat ko beneen 40 ans. muy 120. muy 120 ans. waaw mu mel ni tojutunda moom la alquran di wax kal faqaar. yàlla jël ko bind ci doomu aadama takkal sëñ Cheikhou. cent vingt ans laa la wax. waaw mm-hmm. Mm-hmm. gis nga doomu aadama. Mm-hmm. bu naree juddu. nombre de chromosomes ñaata la du 46 yi créé doomu aadama. 46 la. buñ dajee mooy jur jigéen. XY. mooy mooy góor. léegi bu. mëniyu bi génnee ci baay ji di dem ci yaay ji mm. pour former wu nekk doomu aadama mm-hmm. yonent bi wax na ci xadis mu ni lum gaaw gaaw dana tegu ci loxol jibril mm-hmm. mu ne kii dana am wërsëg wala du am wërsëg danañ ko tëj foofu mu ngi programme wala duñ ko tëj dana baax wala dana bon hmm. dana nekk wali yàlla wala dana nekk axtaab dana nekk lii dana nekk lii dana nekk lii yonent bi moo ko wax hmm. te lu mu wax dëgg la maa hmm. yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun foofu lañ koy waxee waaw tey ngeen dee du wax ci bànneexu bakkanam joom ni lépp lu mu wax rek lu dut yàlla ko ko waxi waaye Mara foofu ma ñëw waaw da ngay seeti sëriñ mu tànni waaw yow kat am nga wërsëg wërsëg yàlla la waaye daa tak ah? waaye daa tak waaye daa tak saraxeel bëy mu ñëw layal bëy li ci kaw nag sax seen ba fekk na boobu jibril wax na dara du ñëw boobu jibril wax na bu yàgg ca man niw ga waaw ca man niw ga la yow daal yooyu da koo wedd yow weddi wu ma ko maa ngi ciy ñëw. neel yaa ko ñëw ñëwal dañoo bëgg mu. bi mu ñëwee. waaw ci xanaan ci digg bi parce que damaa bëgg boo fi jógee àdduna laaj ca wat. xam nga man ñàkkuma fit te ragaluma kenn ku dul yàlla. ñëwal rek ma xam la gis nga bi mu tegee affaire bi. waaw rek bàyyi ma nuyu bi mu dem ci pays yaay ci. mu am 40 jours. muy mu nuyu. boo xam ne dafa niroo ak dax bi nekk ci kaw soow. waaw 40 jours yi. mu amaat yeneen 40 jours. muy 80 mu nekk lumbu. deret. Mhm. waaw mu amaat quarante jour su ma muduxa mu nekk. 100 suuxu yàpp. waaw muy 120 jours. waaw. 120 hmm. jours ñaata lay tombé du 4 mois 10 jour mhm. waaw que 120 jours mooy 4 mois 10 jours. Mhm. yàlla jël benn ruu. dugal ko ci bébé bi. ci biiru yaayam quatre mois jigéen boo ko laaj ne ko da ngaa ëmb mu ne la ëmb naa te maa ngi yëg yëngatu ci sama biir parce que hmm. ruuxu lañ jël dugal ko ci biir koo xam ne dafa am ko ca yàlla du cent du du du cent vingt quatre mois dix jours du 4 mois 10 jours. waaw mhm. nit ki bu dee. ñaata la ñuy tëñ yi. oustaz delloo waxu dund fii moom waxu dee. waaw day foog ñu ñëw ci parce que kalakal moo wal xayaat. waaw rek waaw rek fii. yàlla dee la njëkk a bind ah. ba pare bind dund. waaw kalakal ah, mawt wal xayaat. waaw di yabluwakum ayyukum ahsanu amala. ñëpp mënoon dee ba ma fi ma jël. ñëwal yaa ngi dégg. mu ñaata. 4 mois 10 jours. waaw xam nga 10 jours yi lu tax ñu yokk ko ci. lu tax parce que jigéen mën na am 4 mois. Hmm. biiram du feeñ. wala doomam du yëngatu. waaw am na ñoo xam ne seen seen ëmb dafay yéex a feeñ. waaw lu tax 10 jour ya dégg nga mooy lu tax jigéen bi am na ñoo xam ne bu ñu amee 4 mois ferme rek da ngay gis doom bi yëngatu. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu am il faut ñu am 4 mois 10 jours doom bi soog a yëngatu. Mhm. waa léegi léegi cent vingt ans ya ma la waxoon ca aadama waaw moom lañ tegoon muy bant bu tooy da ngeen may déglu nag ak xel. waaw ñu tegaat ci 40 ans ñu 40 ans yu njëkk yi ban bu tooy la 40 ans yi ci digg bi ban bu digg doomi 40 ans dernière bi moo koŋ yàlla def ci moom ruuxu léegi nag yàlla bañ a sonal doomu aadama moo tax mu def ko fii ay mois waaw sinon doomu aadama bi day ëmb vingt ans soog a wàcc moom mhm. dégg naa la bu baax sarax bi lan la ci li nga bëgg a wax. maa ngi ñëw. waaw kay ba dama am yeneen nu ma lay laaj. 363 xeetu suuf laa la waxoon. waaw doomu aadama am na 363 cër. yim xam ak yim xam. 363 cër. yu mu xam ak yu mu xamul. yu mu xam ci cër yi loxo yi bopp yi. prophète Adisa yonent bi moo ko wax. sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. demal ci riyaadu tafsir. Hmm. bu faridu dahri. waaw da nga ko fekk. waaw léegi trois waa àggaleel. 363 yonent bi mu ne. chaque jour rek nit war na jël 363 xeetu sarax. Hmm. mu saraxe ko mu méngoog jëmmam ji mu santee ko yàlla. ah. 363 hmm, te sarax dafa mel ni. day wàññi alal day wàññi day wàññi alal. waaw te fekk da koy yokk. waaw. anfiqu mimma razaqakumullah dundale leen ci li leen yàlla wërsëgal. Hmm. sarax nag bi ci njëkk mooy sa waajur. dëgg la yonent bi nii la ko waxee sa waajur moom nga war a njëkk a jox sarax bu weesoo sa waajur bu weesoo sa waajur nga jox way néew doole yi sa kër nag mooy waajur gi sa njaboot nag ña nga jur nag ñooñu ñooy waaj ba tey waay jur yi waay jur yi waay jur yi ñëpp ci dugg waay jur yi très bien comprendre naa xam nga man lu ma bëgg a laaj parce que dafa am yu nga xam ni temps bi li ci des bëriwut waaw ñu waxtaane ko non ñoom sax boo ñëwee ci ñoom ñoom loolu lañ leen njëkk a wax saraxel nangam saraxel sangam waaw kon loolu suñ ko teg wala tamit ñu def leen waaw yenn saa yi xaw ma xëlwa lañ ko tuddee xëlwa waaw xëlwa dugal la xëlwa dugal la xëlwa waaw def fa ay ay ay ay non ay ay ay ay ay bis yu bëri di wirdu di wirdu benn turu yàlla. di wirdu benn turu yàlla ba am ko. waaw waaye léegi loolu ñaata temps la leen di jëlal ak lan boo ngeen ko amee yéen lan ngeen war a delloo yàlla suñu borom. ça dépend ci yàlla parce que buñ ci génnee ci lañ lay wax saraxel lii saraxel. waaw ça dépend ci lan. ça dépend ci yàlla. waaw maanaam di nga dugg xalwa damay dugg xel woo. di nga gis affaire yi bagages yi. bagages yi da nga jëg ne am ñay traversé ci néeg bi. gis nga gis nga wala ab jaan ñëw ne la xaar. wala wala mbott ne la yow nga ne la yow. ne la kay fatal. mais mbott ab mbott la ah. mbott ñëw xam nga. lu ngay gis. yow li muy firi. waaw moom mooy wéet rek. waaw wéetal sa borom. di wér di di ko tudd. parce que waxoon naa la yàlla ko am fulla la. Mhm. boo ko tudd tudd la. faalewu la boo koy tudd mu lay tudd mm-hmm. mais boo ko tuddul tudd la kaana rasulullah eh, sallallahu alayhi wa sallam fi jami awqaati yi mm-hmm. yonent bi nekkoon na ci mboolem waxtoom di fàttaliku yàlla mm-hmm. waaw lu rëy la kon xalwa loolu la xalwa fàttaliku yàlla yàlla déglu la sa soxla bi mu fajal doomu aadama ah. waaye nag wax naa leen ne lépp lu yàlla bind ñaar la ci bind baax ak bon ak bon xam nga yéen li ngeen nekk nii. Mhm. am na suñu ci ci ci ci li ngeen nekk nii lu baax rek ngeen ciy def. mais am na ñu nekk li ngeen nekk di ci def lu bon. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dégg nga. Mhm. waaw. Euh, maa ngi nuyu Youssou Ndour lu baax rek lay def. dëgg la ci réew mi. ci réew mi mhm. am na ñu mel ni moom am alal bi mu am te defuñ loolu. sëriñ tamit noonu la mel. ñëpp mënuñoo bokk baax. Mhm. il faut am ñu baax am ñu bon. Mhm. lépp lu yàlla bind ñaar la ci bind. Mhm. guddi bëccëg baax bon rafet ñaaw. góor jigéen lépp ñaar la ci bind. waa léegi sëriñ yi lan moo ñu jékki-jékki rek xam nga Sénégal dañoo jékki-jékki sëriñ yi bëri. bëri waaw. loolooy sama problème. animateurs yi animateurs yi tamit bëri. ah waaw waaye animateurs yi am nañu mën ci kër gi. ah télé yee bari rek animateurs yi bari. ak bari. soxla yee bari moo tax sëriñ yi bari. Ah, mu jeex waaw mais ñii naanal nit ñi di leen max nag. sëriñu marto yi loolu du ñaan. parce que ñaan. ay marto la boo toogee ah, ñaan lañ ko tuddee kaay ñu ñaanal la mën naa lii sama bàyyee nekkoon lii maa nekkoon lii maa nekkoon sangam di naxe. waaw hmm. naxe bi foog mu am. déggoo déggoo li ma la wax xanaa. waaw ndax léegi yàllaa ko defee noonu. yàllaa ko defee noonu. yàlla bi mu wàccee Adama. xam nga kan la wàccee teg ko ci côté muy naxe. Iblis mu wàccee Nuhun wàccee Kanaan wàccee Ibrahima wàccee Namru yàlla bu bindee bu baax rek fii ci ndeyjoor bind na bu bon teg ci càmmoñ am na ñoo xam ne luxus la ñuy naxaate luxus dañu jékki-jékki dañu génn seen nopp ay ay affaire waaw dof loola xam nga loolu ah, wala jël paaka dagg seen ah. nopp nii teg nga leen yaa ngi seetaan télé télé France waaw ay temps da ngay gis benn tubaab rek génne benn pigeon muy naaw waaw te gëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw dëgg la bato ñaata tonne la bëri na mu ngi tegu ci géej gi te suuxut lu ko gën a nekk miracle mhm. avion ñaata heure lay def du yàgg nga yegg dëkk bi nga jëm lu ko gën a nekk miracle mm-hmm. yaa ngi dégg yaa ngi dem koo xam ne mu ngi nekk ba Malaisie fax mm-hmm. nga toog fii di ko gis mm-hmm. loolu dara gënu ko am nekk miracle xam ngeen lan muy miracle bi gën a màgg ci sëriñ mooy nga ñaanal nit mu gis ko yow da nga ñaanalaat yow bu wér loo ñaanal nit gis ko ay reen ngay joxe wala ay sunguf euh, du sunguf du ren foofu damay tontu ba pare soog a ñëw ci sunguf ren waaw gis nga yàlla mm. dafay maye mm-hmm. waaw waaye sëriñ bu maye dafay ñaan sëriñ jaam la yàlla yàlla la mm-hmm. yàlla kursi yom bi kenn du dend ak moom mm-hmm. hmm. lam yelit walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad ma xala nasrulaay fi xalqi yi mu ne bépp nit bu lay wax ne maa ngi dem si magasin yàlla yi mm. tibb fa la ma neex jox ka ma neex mu ne ku la koy wax mu ngi lay nax ku la koy wax mu ngi lay nax hmm. waxul dëgg jàmm bi lim am mooy nga ñaan rek yàlla may la te booy ñaan yonentu mu ne nga rafet ci li ngay ñaan jàpp ne day am yaa ngi dégg ñun nag loolu lañ am dañu rafet njort te ñun lépp luñ ñaan yàlla mu nangu xam nga lu tax xam nga yàlla am na 3000 tours te ñu bëri centre rek lañ foog ne la am yàlla 3000 tours la am benn bi moom rek ko xam benn mil bi mm. beneen bi malaaka yi kese ñoo ko xam ak mm. yonentu yi mm. desul 1000. Mhm. mu jël 300 def ko ci tawret jël 300 def ko ci zabur jël 300 def ko ci linjiil. mu des leen. mu des 100. waaw te am 900 mu jël 100 yëpp denc ko ci alquran xam nga yàlla ñaata téere la wàccee. 104 ah. téere. wàccee na 50 téere ci siisa siisa aadama mooy bàyyam wàccee na 30 téere ci Idris mooy yónent bi njëkk a bind ci kaw suuf. Mhm. wàccee na dix téere ci Ibrahima mooy suufu fi Ibrahima bi ngay jàng ci sa bisma mhm. wàccee ne dix téere ci Moussa njëkk taw Ibrahima wa Moussa mu des ñeenti téere mhm. mu des Zabour Tawret Furqaan ak Linjiil muy cent téere li nekkoon ci cent quatre téere yi yëpp li nekkoon ci juróom fukki téere yi ma la njëkk a limal jël na yëpp dajale ko ci trente téere yi mhm. trente téere yi ma la wax yi wàcc ci Idris yi nekkoon ci euh, Siisa mu jël trente téere yi ci Idriss denc ko ci fukki téere yi mu def ci Ibrahim fukki téere yi mu jëlaat ko denc ko ci fukki téere yi nekk ci Moussa fukki téere yi nekk euh, secret bi ci nekkoon mu jël ko denc ko ci ñeenti téere yi mm-hmm. Tawret Zabour Furqaan ak Linjiil mu jël li nekkoon ci ñeenti téere yëpp denc ko ci alquran. Mm-hmm. muy seen baay. waaw mooy baay téere yi waaw. <laughs> sungu fag reen yow sungu fag fag reen dagan na. dagan na bu baax. ndomba. loolu rek lañ bëggoon a xam dagan na. loolu ndomba. nee na dagan na. jaarul ak sungu fag reen. ak saafara ñuy sangu. ah dagan na. yow dama koy def. dama koy def waaw. kon neex na kilifa gi Touba Gaz. Touba Gaz. ay doomu réew mi ñoo ko moom. macha allah. ay doomu réew mi ñoo ciy liggéey. Hmm. ñu nangul leen ko certifié leen ISO. Hmm. ñu jox leen certification ISO norme yu gaz di doxee ñu nangu ko ci wàllu sécurité matal na ko yërëm na it askan wi ci wàllu dooley koppar gi ci sakkan ñooñu gunge ci ngonal boobu ba léegi. marchandise jaay ko fa muy jaaree. 9 kilo baa ngi nii. Hmm. mooy daj dëpp alaaji mii moo ko tuddee. daj dëpp daj dëpp. waaw. Orange Money. dama la koy bàyyil nga ne orange money rek la ñoom ñoo dàqantele seen bopp yaa ngi toj télé beeg orange waaw ñoom rek la waaw waaw sama kalpe ci sama poos yor sa kalpe ci sa téléphone waaw sama kalpe sama téléphone mooy sama kalpe waaw waaw waaw jël sa xaalis def ci sa téléphone kenn du la tafu doo am problème weccit mhm. am na sécurité mhm. te doo ci rang ba sonn maa la ko wax toogal ci sa kër. da nga ne say facture mhm. nga toog fay ko ca. waaw dooni kenn am fay fayale ma facture. dootoo rang mu naa la dama doon rang alaa muy àgg rang ba ñu ñëw doxee la gannaaw yëgoo ñàkk am ñu coupé leen sa téléphone ak sa courant sa sa soxna si nekk sa escaf ak sa ligne téléphonique ak lépp ki nga koy fay. moo tax sa oto bii. waaw waaw xaalis ci sa poche. demal ci station rek total nga gaar soo bëgg a yónnee euh, euh, euh, fële Casamance dëkk ba waaw. Kaolack gee nga bëgg fa yónnee xaalis. Hmm. ci sa téléphone. Oh, maanaam muy doo buuse doo rang. doo muy doo doo doo rang doo rang kenn doo fay ay ay ay ay kii maanaam. waaye ma ne ki ko mën a ku koy jéem bokkuñu. bokkuñu nañu waxante dëgg nag. ah xam nga lu ci gën a neex. Hmm. Sénégal da ngay waaru essence ko ciy jënd. Ah. Hmm. te saa yoo fayee facture am nga 10 pour cent. alors ñu may la ko crédit sa téléphone nga woote fa la neex. Ah. butigu bonjour bi yoo dugg. Ah. jëndal lu la neex seetlul bonbon boisson fayal ci am joxal sa. Samba xam nga léegi lu ma neex. Ah. waaw qu'est-ce ci mbedd mi. qu'est-ce que am na booy inscrire. waaw doo fay dërëm na tàkk. Mara leer na nañ. kii mooy poudre magique nga ko kon neex na kon baax dinaa la ko may. macha allah kii mooy angale bi de dégg na angale. waaw angale bi jub Cheikhouna Mbacké trading. trading you understand trading. I understand ok thank you thank you. thank you ah, waaw ma ñëw. kii. ay gana poudre la bi nga xam ni. waaw jëlal sa brosse def ci ndox. capp ko ci brosse sa bañ day weex tal tal ba pare di xeeñ lu neex. <laughs> muy tuxkatu cigarette yi waxuma sa genre gi ndax yéen du ngeen jege sax muy tux ba nangam sax mais tuxkatu cigarette yi. waaw day dindi tache yi. rey microbe yi. jox la bañ ñu weex tàll. Ah. maison mère bi mi ngi nekk Touba Sandaga troisième étage. te amul benn effet secondaire. amul benn effet secondaire. ci sa jàmm rek ngay ne naa Mbàkke. waaw trading fu waaye dem ci Sénégal am na fa. maara yii yéen da ngeen ko war a utiliser. maara léeg-léeg nit ñëw di ñaan suuf si. ngeen ne teqet ree ko. Ah. xam naa la muy ñaan lu sax faw faj ci ne. <laughs> maara looy tëjee lan la ah. ak jeunesse bi. ak senegal fi ñu toll tey. waaw kay waaw Sénégal fi ñu toll tey. ah sëñ bi war ngaa wax ci nag. man daal waroon naa wax. ci ñi nga xam waroon naa wax ci ñi nga xam ne dañuy nas kurus di naxe man daal loolu. day dem ganax waaw demal demal day dem ganax na tëj. waaw léegi li ñuy li ñuy tëjee ci loolu. waaw mooy li ñu commencé woon rek. waaw yàlla. Hmm. lu nekk ñaar la ci bind. waaw naxekat day am nit ku jub tamit day am. waaw naxekat bi mooy feeñal kii nekk si njub. waaw ki nekk si njub tamit mooy feeñal na xekat am na parce que bu defee ni ñuy gis dana feeñal kee day maanaam new newul ci dara kee tamit ki newul ci dara day feeñal ki ne ci dara ne man mi lii nii euh, lu lu jub laa am mm-hmm. lu jubadi laa am léegi nag li may tëje mooy mm-hmm. delloo ñëpp ci ragal yàlla dama koy wax Moustapha Fall ma ne ko nit lépp lu mu am ragal yàlla moo ko may aka wóor Moustapha Fall ci caaro yi chaque jour ma wax ko mm-hmm. te suma xarit la suma rakk la ku may jàppale la ragal yàlla amut lum la mënta may mhm. te yàlla buy may sëriñ mm. boo bu la tàgg woon xam nga am na nit ñi contre nañ sëriñ ñi torop léegi mhm. parce que ñi jubadi yi ñoo ci ñu baax mais ñi jubadi yi foog ñu am parce que si fànn yëpp la mhm. dañ ko gën a teg ci sëriñ rek wax naa la ko sama njëlbeen wax ne naa la sëriñ hmm. saa yi ko xoolee hmm. sa xel wal naa dem ci yàlla hmm. jërëjëf yaa ngi dégg jërëjëf ba tax na li ñuy digal nit ñi mooy nañ dellu ci alxuraan kontaan nañu madam alxuraan mooy lépp ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb mais yow Kaolack nga dëkk man Kaolack laa dëkk taalibe bàyyi foo ne fii maa ngi apix mën nga sikkar Zikar waaw mën naa ko mais. mën ngeen ko su suñu suñu baat dafa desee neex. Ah, ngi apixi gii. maa ngi apixi bii waaw. jërëjëf kontaan kontaan nañu waaw balaa may tëj waaw maa ngi nuyu sama sëriñ mhm. sama baay sama xarit muy imam Medina Baay bi di imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mhm. gis nga gone mhm. bu dëgëree nday jaatiyee ca mbagg ya ku amul wéeruwaay da nga neex a ba max fa nga wéeru sama baay la sama xarit la sama imaam la sama gidd la sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na teraanga ji gën a dolleeku ak barke bi di ñaanal doomam gi nga fi xam ne lii ma sol tey moom ma ko jox doomam jëlee ko ba Égypte muy mbub mu ah. cher wallaay mu ne ma lii man maa la ko jox kaddu booy dem TFM nga sol ko gis nga ñes kër baay googu hmm. ba ñuy doog a génn alaaji ñooñu ñaanal de invité nañ ñu fa suñu bopp yi defal dellul foofu. keroog muyul gëm naa ne liñ fa gis ci nit. <laughs> amul ku siiw ci àdduna ku ko fa mës a gis. am ci àdduna xam lu tax <laughs> hmm. moom international la. Hmm. dëgg la. boo wàcc yow boo demoon tey Nigéria danañ la teral. Hmm. te Sénégalais ñu bëri Nigéria rek lañ foofu Ghana boo demee Tamali. ñu teral la parce que moom yëg na ci avion di wàcc Tamali. nit ñi fees aéroport bi ba avion bi mënul atterrir mënul wàcc. mu ne ay na barxaamu wama barxaamu atta fannaaw fi hubbi waxaamu. maanaam. ana ban barxaama moo tax ba avion bi tey mënut mënut wàcc ci suuf. ba nit ñi taxaw nii. noonu la ko defee Soudan. ci Sénégal gis nga Ablaye Wade bi Soudan yi amee problème. mel kan la yónni. du Serigne Mamoun. waaw moo dem régler ji problème bi Soudan. sëñ bi ñaanal. maa ngi nuyu waa Medina yëpp. waaw di nuyu waa Dakar yëpp. Mhm. la siyamaa lébu yi. maa ngi leen di nuyu. Hmm. nga sama yet bii. Hmm. man kay bëgguñu cee wax. am na. bu joxoñ ko seex. am na lan am na sax nga joxoñ ko am na sant yet bi ak lu tegu. waaw joxoñ ko fi ma ko jëlee. ku la ko jox ñooñu ñoo dalal maam El Hadj Malick fii ci Dakar. man mi man ñi ñu ko féetale indi. waaw xam nga yet bi. Hmm. yet musaaba da jaan la nekkoon. dafa am lu ma jox ma jël yet bi. <laughs> fooy toll ñu jox la ko. Ah. maa ngi nuyu Seck Ndiaye Atoumane Ndiaye. ma Ndiaye ngoone tënk. ma Ndiaye ngoone xam nga ñoo ñoo dalal Seydi Hadji Malick ah, ah, ay taala yaayu Mbaye Ndiaye de koddo yaayu si ñu ñënd seek ak yaayu maram ndooy ñoo ñoo ñoo ma jox yet la fekk leen di gërëm bu baax di gërëm Yaaya Jàmmi di leen wax ne sëriñ dëgg la mel na ma ah. waaw di ñaanal waa Gambie yëpp yaa fi déclaré loolu yow waaw <laughs> chambre mën ñaanal dañoo demee si ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal latifu ayaa rahmaanu basur razixi raufu ayaa shakur waahibi maliki li tusri najaay anta rabbi wa xaalixi yarumu baydan daarian min kat at fatantu zaxsibu an shara kulli xaasixin ala ajilin tuxsil marama ilahina fa anta mujibun kaafiyan kulla waasixin kon daal yow fu mu toll nii ku bëgg ñaan mën ngaa dem ca yaay jaam suba yaay dem Gambie ak man parce que ñooy daje lii suba yow naa la yóbbu du gàmm ngeen di daje noonu. foofu baro fan ngeen di daje noonu. foofu gàmbe la ñu ngoonale. waaye ah. eh, fan ngay daje ak Yaya Jammeh yow. fan ngay daje ak Yaya Jammeh. baro bu fay daje. ah. jërëjëf waay. ah. waaye sëñ bi moom. doo ñëw ma gis la ci pet.